volonté manifeste là moi je crois que wax nañ que depuis le commencement même pour n'est-ce pas révision exceptionnelle révision ordinaire ils ont préféré except c'est-à-dire li ñu def léegi dañ ko togg di ko togg di ko togg di ko togg tout le processus a été biaisé du début à la fin et aujourd'hui l'objectif moo doon éliminer ay candidats comme ni mu ko waxee Ousmane Sonko moom dañ ko doon teg fële mais ba tey ils ont la volonté de de de d'éliminer dans ces conditions là lu ñuy lu problème la ba pare euh, recul démocratique bi lan moo ko waral c'est-à-dire wax na ko fichier bi dafa nekkoon en ligne mënoon nga vérifier mënoon nga xam ndax ci nga bokk mënoon nga kii mais moom mu dindi loolu yëpp nëbb fichier bi mais fichier boo nekk ma nekk fa keneen nekk fa ñun ñu moom ko Sénégalais yi luñ ciy nëbb c'est une volonté manifeste de tricher et le code électoral nous permet d'avoir vous avez triché a été clair maintenant ils n'ont pas permis à l'opposition de pouvoir aller vérifier des parrainage de toutes choses parce que à chaque fois plainte Adji Sarr nangam nangam les gens n'avaient même pas le temps d'être wala boog ngay defi dara ñu lay top wala ñu lay surveiller sa kër c'est-à-dire vous avez tout fait pour éliminer l'opposition réduire l'opposition à sa plus simple expression mais maintenant nous hmm. avons réussi une chose écarter Macky Sall de la <laughs> compétition génn na ci dans deux mois il l'a dit je hmm. crois que vous n'avez pas la possibilité de continuer et vous avez très et je l'ai dañu war a informatiser affaires yi wut ay applications. yoo xam ne dina permettre Birame Khoudia yaa ngi nekk fi naan dans deux mois dans deux mois nangam ak mm. mais li ma dégg ngeen wax ko ci fichier électoral bi. su fekkee ne looloo ci nekk bëgguñoo dem élection de. je ne vois pas comment est-ce que le pouvoir pourrait perdre une élection ici. aussi c'est une fuite en dama koy préciser. defe uh-huh. naa wax naa ko fépp cest à au fond avec tout cela bu ngeen ñëwee. aucun Sénégalais moi je crois que même 5 ou 10 pour cent du ngeen ko am c'est ça qui fait que <laughs> dinañu changer le régime par A ou par B malgré tout ce que vous avez eu à faire aujourd'hui Sénégalais yi bu ñu comprendre ni waruñu voter voter Amadou Ba mais nous allons vous dégager c'est sûr et certain kon kay jarul coow li comme bu ñu demee ngeen ñu leen rek d'accord amul problème wa waxtu bi daanaka jeex na Mame Birame alors cette élection là ni ko ni ko ni ko ni ko gaa ñi gaa ñi euh, présenté candidat yi fi mu nekk nii ñoo nekk di kaas mais les sénégalais bu ñu deful ndànk ñoom ñooy njëkk a kaas parce que tel que les choses se passent dina jëm ci élection boo xam ne électeur dina ñëw ci centre de vote am ak bureau de vote am ñëw ñu xool ne ko newoo ci fichier bi est-ce que yaakaar nga ne mën nañu dem à une élection régulière et transparente et apaisée dans ces conditions-là. non tey euh, wax sànq. élection du jour vote ba. Hmm. c'est un processus. boo xamante ni mu ngi démarrer ci révision liste électorale yi. foofu la tàmbalee. Hmm. déjà foofu am na problème. parce que nee naa la six mois la ñu waroon a may. Eh ñu nekkul ci liste yi ñu jox leen benn mois. Mhm. ça pose problème deuxième étape processus bi mooy parrainage gis nga coow li ci nekk nii. noonu la étape bu ñu dem rek coow la. mais noonu lay demee xam nga euh, euh, Moustapha. bu mhm. man yéen baax ci mhm. boo leen defee lu baax rek ñu wax ko. Serigne Ndiombe moom parce ñu tàmbalee ba léegi dara baax. waaw yow yaay fi yow yaay fi pour wax lu baax ci pour Macky Sall. très bien waxuma pour Macky Sall pour Sénégal léegi man ce que je dis euh, gëw ma ne. waa Déthié Fall. Mhm. dañoo gën a pare. sax Bougane Gueye parce que loolu moo tax ñu jàll pare naa ji. gaw ma ne. Euh, kaneen kan moo jàll Cheikh Tidiane Dieye. dafa gën a pare. waa Mimi Touré yi moo tax mu jàll. Mhm. Boubacar Camara. Euh, euh, parrainage bi c'est un système. Mhm. pour ñu xool ñan ñooy bokk ci élection yi ak ñan ñoo ci dul bokk c'est aussi simple que ça. c'est ciblé. te te te te te te li feeñ ñii. te li feeñ ñii lu muy wone mooy. Hmm? ñoom seen baromètre mooy élection locale yi passé maanaam am na woon na ñetti coalition yu dëgër mm-hmm. léegi dañuy def de sorte que ñaari coalition yi ci gën a mag seeni candidat mm-hmm. bari foofu muy yeewi ak wàllu muy yeewi non non muy yeewi ak bennoo bokk yaakaar ak bennoo ak bennoo bokk yaakaar mm-hmm. candidat fi ñuy multiplier woo foofu la Cheikh Tidiane Dièye yeewi la bokkoon euh, Déthié Fall yeewi la bokkoon pur Yewwi la bokkoon. et a Habib Sy Habib Sy Yewwi la bokkoon donc au lieu que ñoom seen un million de voix yi ñu amoon ci élection locale yi. Mm-hmm. ñu am ñaari eh, eh, candidat yoo xamante ni au moins ku ci nekk dina mën a drainer cinq cent mille voix. Mm-hmm. ñu def ko ay huit candidats ku nekk am loo ci mos. noonu la ko xalaatee. Mm-hmm. te c'est la même chose nag ak Benno Bokk Yaakaar mi sa ji représenté moo tax bu a ne dañuy ànd ak Amadou Ba toogaat. table a gën a ridicule bu affaire yi jeexee mais mais mais mais Mame Birame est-ce que ni rythme bi demee nii euh, ñu ñi ngi invalider fi mu nekk maintenant neuf ñoo jàllagum certainement six dina ci topp wala je ne sais pas moi mu mat quinze est-ce que li ngay wax ni du faussé à partir du moment où suñu suñu officialiser candidature yi des coalitions qui vont se créer am na ñun recalé recalé ils vont rejoindre d'autres candidats am na sax peut-être ñoo xam ne ils vont désister waaw am na ci mag coalition yoo xamante ni. parce que maa ngi naan deux mille dix neuf. le cas d'Idrissa Seck. voilà mu ngi doon. mais bu ñu demee ba nga xamante ne parti yi ñu jàpp ne ci biir coalition par exemple Yewwi Askan yi ñooñ ñoo fa ëpp doole. Mhm. xam nga ñi ñi ñi ñi bootu moom ñi ñii ñi ñi topp ci seen ginnaaw bu nekkee Talla Sylla dafa topp ci ginnaaw euh, Amadou Ba ban njëriñ la am. Talla amul électeur. <laughs> bu dee <laughs> eh, kii nu mu tuddati Mamour Ibra Kane ngi nii dem na mënul am 6000 parrainage ah kooku bu toppee ci ginnaaw eh, comment dire Boun Abdallah Dionne ban njëriñ la am donc ñii ñi li ñuy xaar mooy ténor yi nga xamante ne nii quelque part am nañu une certaine représentativité mën nañu au moins 100000 voix voilà au lieu que ñooñu dajaloo hmm. ñu tas leen c' est ça l' objectif léegi bu ñu ko defee benn Bokk Yaakaar def ko euh, euh, yeewu askan wi. Hmm. benn coalition moo fi des boo xam ne benn candidat lay yóbbu. muy muy ban muy wàllu. muy wàllu. <laughs> ah xoolal li ma la wax. <laughs> alors ci euh, Pape est ce que warul tekki ne du côté de l' également war nañu revoir seen stratégie en fonction de cette nouvelle donne mooy Ousmane Sonko out parrainage bi éliminé na ñenn ñi. il y aura certainement des des coalitions yu yuy juddu fii ak le 20 wala après le 20. waaw ah bon est-ce que est-ce que est-ce que c'est pas trop tard pour ñu revoir seen stratégie. parce que mhm. instant yii nii. Euh, comme ni nga wax ci fichier bi rek euh, yaakaar naa loolu tey na xel. Euh, mhm. sànq ba tey maa ngi dugg ci site Sénat bi parce que en réalité sénégalais yu bëri ñu ngi commencé di jéem dugg ci site bi pour jéem pour jéem xool nag ñu ngi ci. il faut encourager koy jaral nga dem vérifier ba xam effectivement yaa ngi ci fichier bi. Sénat point sn ngay def nga dugg ci boo ci duggee. Sénat point sn oui am nga fi ngay mën ci fichier bi nga mais mais faisons le cet effort moo tax gis nga Moustapha c'est-à-dire hmm. dañuy répété rek euh, yaa ngi fàttaliku ko ba ñuy invité fii je euh, le gars de euh, Abdourahmane ba mu koy naan dañ leen di bloqué ci parrainage yi mi xatraayoo di kii di mer. Hmm. lan laa ko si tegaloon le fichier électoral amoo ci benn contrôle. parrainage bi ngay dem di wuti ji loo xamante ni voilà amoo ci benn benn benn possibilité nga contrôler hmm. mais day neex président Macky Sall nga jàll mu naqari ko doo jàll parce que amul mérite ah amul benn mérite tey jii on peut pas nan la ñuy def ñoom ñëpp ba am sax autant de parrainage. Hmm. oui Souleymane Ndéné contre lui. mais man xaw ma sax fiche fiche parrainage.